wajalilaayi lu tuuti lu mën lu bari ñaari téeméer par weer juróom ñaari dërëm bis bu ne ci lu tuuti loole la Touba ci kanam jaar ba def lii ci Touba ci diirub netti at ay bërëbu fajukaay ak i ambulance jàppale lu toll ci téeméeri dara di defar bâtiment ca université Cheikhul Khadim ànd ko addiya téeméeri million leeral dëkk bi ci ay lampadaire defaraat mbedd yi ci jamonoy nawet ay camion yu mbalit naatal Touba ci jëmbatum garab ñaari camion citerne ak ambulance jox ko sapeur pompier benn pick jox ko Safinatul Amaan yóbbu ndox ci sancaan yi jënd juróom benn pompe forage ñaar fukki réservoir yu juróomi junni litre dimbalante sociale def na ci lu ëpp juróom fukki million ñeent fukki mu tàbbal ko ci opération jële fi coronavirus lii lépp ndax yow yow mi joxe weer ne yaa ko def ay ca murit liggéey bi bu mu laal suuf ndax liggéeyub Serigne Touba la. liggéey bi bu nañ ko yëkkati bu doon ñu yëkkati bu mu laal suuf ilaawu kalimatillahi al ulya loolu mooy liggéey bi loolu nag bis bañ ci mën a jëm jëmul fer bis bañ ci mën jëm kon nag jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf defal jazz 144 jazz liggéeyal Serigne Touba ci dëkkam bi di Touba